saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekk ca xët wu njëkk wa Yaxya Jóob Yékini le journal ba xamle mooy Yaxya la léegi mu tas absence aux réunions avis critique contre l'instance Yékini et CNG vers le divorce réunion ya ñuy Jóob Yékini saa yu ñu bu doon ab sëy la léegi mu tas moom Yaxya Jóob Yékini njiital Faata production monsieur le ministre Matar Ba moo ko copté woon ngir mu bokk ci CNG ba décret bi ko nommé ngi wàcc le novembre ca conseil président président CNG bala bokkoon waaye fan yi kenn mënatu koo gis réunion réunion ba le 23 septembre nationale gisuñu fa Yaxya Jóob Yékini mbooleem membre bureau baa nga fa woon ba mu des Yaxya Jóob Yékini vingtième édition drapeau chef de l'état ba ca mbuur it ñépp ñëwoon ba mu mooy Yaxya Jóob Yékini Mohamed Ndaw Tyson ak mbooleem responsable yi bokk ci comité de gestion bi yépp ñu nga fa woon mennam Yaxya Jóob Yékini moo ne woon mes ne menten kenn gisu ko rax a am ay nit ñu bees a rax ca dolli ci beneen interview la xam leen ne ñoom ay simple conseiller képp lañ président Alioune Sarr am na ñaari vice président yu koy jàppale loolee moo waral journal ba xëy na diggante CNG ak Yaxya la jëm la jeexagul mooy combat ba war dox ca diggante Laye Gothé ak Da Texas le février passé lañ doon amal seen face à sa grand hôtel de Thiès Laye Gothé ak Da bu Texas ku ci nekk wax nga sa morom la ko fas yéene def le premier mars moom Laye Gothé la mu xam le mooy sama wax du ci bëri Da bu Texas bu yeboo xam ne lamb ji amul dara lu ciy set bu yaakaaree ne dina am lu ci neex bu yeboo dem toogi këram Da Texas ne ko man daray pression nekkul sama kaw ma jombi wu ma te ku am rigueur la lu ne sama adversaire mu ngi koy wax waaye ma ne patt pataaral bu ñu desee maak moom rekk ci géew bi dana xam kan mooy daabu Texas balaa arbitre di tëj barrière yi muy des sama digganteeg moom ma wuti doole loole la Modou Lo xam le la jëm ca états ngir yokki doole waajal combat mag Ama Baldé moom Modou njort na ne combat bi mën na am le 26 juillet moo tax mu delluwaat ca États-Unis Sow laay njomboor Balla Diouf ak Kandji am nañ liggéey bu mat sëkk dafa war a daan Siteu mission boobee ñu ngi ko teg ci loxoy coach ya na mu war a daanee Siteu état de forme baa xeex baak yépp ñu ngi ko teg ci loxoy laay njomboor Balla Diouf ak Kandji ñetti coach yooyu ñoo fas yéene liggéey ak le piment des Parcelles Assainies ngir mu ñëw ci kaw Siteu bu ñu jàllee ca lit sans frappe dañ fay fekk ordinateur gannaaw bu mu jëlee tournoi ba woon ca ñaaxaar na mu jommale woon woon ca ñaaxaar noonee la jommale woon mbër ca jiloor week-end ci lit sans mën nañ ne ordinateur moo xew moo appoo vent waaye mbër ma vent ba du mooy góor a sokk góor a sokk un cas critique loolee novembre la ko def ca terrain gaal gi mooy demi-finale ba mu ñàkk ci digganteem ak Ngaan Seck beneen demi-finale ba mu ngi ko ñàkkee ca Diofior digganteem ak Libidor benn yoon la àgg final ca terrain gaal gi te digganteem ak assurance la woon dimanche 19 dafa wàññeeku bu njëkk da doon attaqué waaye léegi day taxaw di xaar ñeneen ñi jàpp ne moom Gora Sock mystiquement dafa limité bu ñu jàllee ca journée yi ñu dëgmal diggante caatu xaar yàlla ak Cité 205 le avril lañ ko jàpp Adrien Senghor le 23 février foofee Ablaye Diop moo fa woote teg fa 1 million jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën a fës ci étu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah